sëriñ bi soxna si bu dee yaa ngi soog a dugg ci chaîne bi di TNM TV ñu ngi lay ñaan nga abonné wu ba noppi ba sa cloche de notification bi lee ngir mën jot suñu vidéo asalaamaaleykum waaw léegi nag xam naa tàccu yi neex na yooxu yi neex na mais bëgg naa ngeen déglu ma une minute li may njëkk a wax mooy yàlla mooy yaakaafi yàlla subhaanahu wa taala moo tudde boppam alkaafi xam nga alkaafi lan lay firi mooy yow mii musalaate xam nga alkaafi ñaata lay peese boo ko adadee cent ons ñetti cent onze mooy trois cent trente yi ngeen dajale bërki démb kon li ma bëgg ngeen xam ko mooy lii ngeen di def nit mënu ko Ousmane Sonko mii mënut lii man mii mënuma ko lii procès yàlla la yàllaa ko yore kon amul tiit amul ragal ñaareelu mbir mi ma bëgg ngeen xam ko mooy Benno Bokk Yaakaar déglu déglu ma déglu leen ma rek ma non déglu leen ma rek déglu déglu déglu déglu déglu dañoo xool constitution Sénégal xam nañ ne seen président bii war a bokk ci élection yi ñu dajaloo ne ko par force da ngay dem waa ñun nag comme que ñiñ dénk réew mi ñoo mën a dajaloo ci ginnaaw benn nit ne ko par force dinga nga dem ñun sene Sénégal ñoo ne Ousmane Sonko par force doo dem leneen li nga xam ne dinaa ko jeexale lii nag ndigal la ndigal mooy yéen a gën a xam ne amul lenn lu ñuy maye lu ñuy jël di ko may Ousmane Sonko kon xalaatu leen ñu jël noolier di ko may Sonko loolu moom yéen ñëpp xam ngeen ko mais léegi dossier bi yóbbu nañ ko chambre criminelle lii ma leen di wax nag damaa bëgg yéen ñëpp ngeen dégg ko chambre amul benn dossier bu fa mës a dugg ci at mi ñu atte ko ci at mi ñoom nee nañ politikuñ nee nañ dossier euh, privé la seen yoon nekku ci kon nañ respecté procédure bi nga xam ne mom la sambur criminel masa doxé sa buñ jappé ab até ci at mi muy 2023 bi suñ ko ci até rek na ngeen xamné bëgg a empêcher Ousmane Sonko mu nekk candidat moko taxa jog wa lolu nak lolu nak bu amé mané lolu nak bis bu ngeen déggé ñu at fii ak élection yi japp nañ datu Ousmane Sonko diko até makisal Macky Sall di nga xamné réew mi ay sëti sëriñ Touba fi ne réew mii ay sëti Maam Abdoulaye Niass fi ne réew mii sëti Lat Joor a fi ne réew mii sëti Njaajaan Njaay fi ne réew mi jom jom ak fula ku ñàkk fit ku ñàkk jom juddoowul ci réew mi bis boo laalee Ousmane Sonko billaahi wallaahi tallaahi sa nguur day daanu su ko laalee dina daanu jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye bu ko defee ñu sëriñ bi soxna si bu yaa ngi soog a dugg ci chaîne bi di TNM TV ñu ngi lay ñaan nga abonné ba noppi ba sa cloche de notification bi ngir mën a jot suñu vidéo